xotti fa benn maire bu tudd Kiné la mu indi clip boo xamante ni réalisé woon na ko à l'époque. waaye mu nekk benn chef d'œuvre boo xamante ni euh, musicalement euh, defe naa ne def nañ ci ay jéego yu yu yéeme mais dama bëgg ñu seetaan vidéo bi parce que d'abord souvenir la dana leen neex mais ñu wax aussi tamit message yi nga xamante ne ñu ngi ci biir ci xamante ne dina travailler sa bët ba nga xamante ne mag ñi liñ doon def maîtriser woon nañu ko on regarde.

Bye.

voilà bala Aïssa Boury euh, euh, vidéo bu yàgg la ah. vidéo bu yàgg Pape Cheikh ñoom Bélissi voilà ah, euh, ñoom Adama Ndiaye Adama Ndiaye le grand réalisateur Adama Ndiaye le grand ah. réalisateur moom la ñu dénkoon madame Ndiaye madame Ndiaye voilà jeex na kon yow kon yow kon yow xam nga kon yow xam nga mais bu ñuy ñëw tey Pape Cheikh bu ñu taxaw rek ci vidéo bi yenn taxaw seetlu ñu am day am ñetti aspect yoo xamante ni foog ñu woon ko téléspectateur bi njëkk mooy hmm. da nga doon gis ne bu mag ñi buñ doon def vidéo dañuy créer lu ñuy wax tendance maanaam yére yi ñuy sol da doon gis comme léegi ni ñuy waxee diw ma solal ñoom seen bopp dañ amoon seen ay couturier tey qui ont de grands noms yoo xamante ni ñii tey ñoo leen révélé dama doon xool tenue ñu doon sol yëpp ay tenue jot la ñetti sër lañuy sol. ça veut dire que xam nañ ne dinañ fekk ci vidéo bi waaye tamit war nañu muur seen ay cër loo ko xoolee fii euh, du rekk cosaan moo leen booleek ñetti sër yi mais da doon gis ñoom da doon wodd ba diis donc message yi surtout ngay woy yenn sëriñ yi da war a muur sa cër donc nag ñu voilà exactement loolu euh, premier message bi la. deuxième message bi mooy costume mooy par exemple tey euh, dafa incarner une une comment on benn. Linguère tu vois ci biir yor hache bi et tout ça ñu takkal ko ko et tout donc loolu tamit da ngay gis ne euh, non seulement ki nga xamante ne tey day seetaan mais bu gisee personnage boobu muy incarné dana ko rappeler wala dana poser ay questions euh, kii kan la donc loolu ça interroge l'œil et forcément après tu vas vouloir demander waaye lan moo tax mu solli lan moo tax mu solli donc c'est important puisque l'habit ne parle pas mais ça interroge l'œil donc c'est toujours bien ngeen ni sol loo xamante ne daana interroger œil bi ba nit ki mën a dem gëstu troisième bi moom mooy paysage c'est très important par bu njëkk ba xëj na amuñu woon jumtu euh, yenn matériel yi nga xamante ne tey danoon def yenn décors yi wala lumière ak yooyu parce que ci euh, analogique la nekkoon c'était euh, ay loolu yanu la donc c'était plus difficile et plus lourd léegi nag ak numérique bi. c'était plus difficile mais mais réalisation bu rafet. exactement voilà c'était numérique bi egg amul woon. mais dañ ko daan def ba nga xamante ni dafay voilà quoi day rafet. léegi léegi 24 heures nga tourné vidéo ñii bu njëkk ba saa ça prenait des jours pour nga tourner ay euh, vidéo parce que plan yi changé qui bi jël beneen caméra teg na leeg champ contre champ yooyu donc surtout nga def ci jamonoy beta la jamonoy ko daan donc c'était caméra yu diis la ba pare ay bande la woon donc euh, bokkul li nga xamante ne léegi ay puce la bu njëkk ay bande la woon donc ñu euh, ko doon tourné nag donc paysage bi daf ci joué tey aujourd'hui noo di wax yenn histoire yi te duñ ci gis fas wala duñ ci gis ndaw rabbin wala duñ ci gis euh, ni mu solo moom donc mag ñi la doon way donc mag ñooñu tey ba loola ni way dafa am déjà yow noo war a mel euh, physiquement ba nga xamante ne gis magu démb cosaan dana ñëw ah danañu gis tamit euh, li nga xamante ne mooy paysage parce que mënu ko def biir ville parce que ça parle de Touba voilà ak ñi mu way at yenn œuvre yi nga xamante ne réalisé nañ ko plan bii ni ñuy wane nii Pape Cheikh. Hmm. mais innovant. dëgg la à l'époque waaw à l'époque lii nii tey gars yi dañ ko def fond vert. yaa ngi dégg les gars yi fond vert mais lii nii boo xoolee xamante ne ça a été un travail titanesque. pour nga am lii lii lu rëy la woon. waaw lu rëy la woon. Ah, xam ñu gis nit ñetti image yu yu dend. Hmm. nga gis ko euh, ñi réalisé xam nañ li may wax donc c' était quand même euh, beaucoup de travail. loolu mooy ñoom it c' était impressionnant léegi la yomb ndax mag ñi. bu ñu doon clip surtout jigéen ñi ñoom ñoo révolutionné vidéo Sénégal ndax ñoom. bu ñu doon sol dañuy teg ñeenti yére yére bu ci nekk ak takkaayam takkaay bu ci nekk ak paysage am bii kër bii laa koy def bii ci àll bi fii bu njëkk ba ñun nag boo doon xool bu mag ñi bu njëkk ba bu ñu doon clip benn yére rek la ñuy sol mag ña seen ay vidéo benn yére lañ doon sol moom la ñoo way ba clip euh, clip bi jeex mm. ñi nag dañ doon sañse di feccikat yi di sañse ñuy joué di sañse donc nga am ay porteurs yu bari loolu mooy dañu mës a xam ne euh, yére dafay jëmmal vidéo donc voilà c'est toujours se mettre en valeur donc euh, mu nekk nag une belle œuvre boo xamante ne ça a non seulement les Sénégalais mais surtout le paysage de l'audiovisuel mhm. ñu andi ko tey comme souvenir voilà mu ngoog j'aurais bien aimé xam kan moo réalisé woon clip bi a l'époque peut-être ci fin bi dinañ ko bind euh, xoolal zone bi mu la may fi maire bu xam couleur yi ngi ku xam ku télé la parce que am na yenn yenn couleur yoo xamante ne dama koy seetlu vidéo am yu bëri yëpp nga xamante ni boo gisee buy dem télé yére yi muy sol ci nga xam te ne kii xam na couleuru télé. Hmm. maire boo xoolee xam na couleuru télé ndax c'est des couleurs yoo xamante ne c'est quand même euh, très flashy et tout hmm. ça. Hmm. donc ngis mu may la jaune fii may la njaxas bi fii et tout ça. mais maman ne Lam moom la ñuy wax daal c'est une euh, je ne dirais pas la vieille école mais elle très moderne dans la tête. très très très moderne. donc loolu nag li koy li koy may rek moom mooy euh, bëgg toujours di dénk ay mbiram ñi nga xamante m mën nañu exactement. voilà et ça doon labo. Mhm. Euh, ci euh, clip bu euh, yàgg boobu bien réalisé à l'époque merci Exaidex alors on va